Je man Ali Tandian euh, professeur titulaire université Gasson Berger de Saint-Louis Digital un euh, benn bu ñu wax germe germe nak dafa euh, laboratoire de recherche de xamni jampar lepp lo xamni ci birum tukki lay dem tay ñu gan yu jégué ci yu Belgique Portugal Italie France Roumanie ak Ghana ñëw teewee ci ñetti fan waxtaan ci mbirum tukki mais dafa wute nag ak liñ daan wax ci tukki parce que tukki booy xoolu at yi weesu buñ ciy wax day daal di tënku ci barsa ba barsax wala mbirum mbëkk mi ñu nag dañoo andi beneen gis-gis bu bees mooy nan lañ mën a lal waxtaan boo xamante ni jàngalekat yi nañ ci teew acteur société civile nañ ci teew politique yi nañ ci teew waaye tamit migrants yi dina ci teew parce que loolu nekk na lu am solo loo xamante ni buñ ko fësalee dana mën a tax sunu dëkk yi seen waxtaan ak yeneen i réew comme ku mel ne réew Union européenne yi nga xam ne ñoo financé projet bi ñu mën a egsi ba am benn waxtaan bu sell waxtaan boo xamante ni ñëpp nañ ci gis seen bopp waxtaan bu rafet boo xamante ni tamit danañ jox kàddu émigré yi parce que at yi weesu dañ daan waxtaan mais daaw ñu jox kàddu émigré yi. moo waral tey jii daal mooy bis boo xamante ni ci lañ doon tënk waxtaan bi fii ci Ndakaaru balaa ñuy dellu ci yeneen réew di ko rafetlu nak, parce que Sénégal moo tertu new ñu woon rek beneen benn pays kese ñun ñoo nekkoon ak yeneen réew ren Senegal mo tertu te dafa dajek lu rafet mooy waxtaan yu bees yi ñuy bàyyi ak migration ak président Macky Sall bi nga xamante ni mu ngi mandat Union africaine moo taxoon euh, loolu tax tey jii nag ñu xool nan lañ mën a porter un discours boo xam ne ni dana changer politique yi. waaw waxtaane migrant dafa am solo parce que euh, mënoo liggéey ci mbir te ñi ci nekk nga leen di ignorer moo tax tey jii sunu waxtaan porté ci li ñuy wax récit narratif mooy lépp loo xamante ni kaddu la xam nga migration boo koy seet ñi koy saytu yëpp danoo fësal ñaata la ñuy yónnee wala ñaar tit ñooy tukki du ma ni rafetul de. waaye war nañoo mën a xam aussi lan moom bébéb tukki bi li bébéb tukki bi nag malheureusement booy seet at yi weesu dañ ko tënk ci lu ñuy wax les transferts matériels wala ambulance yu ñuy yónnee wala ñàkkum liggéey ñun nag ci liggéey boo xamante ni def nañ ko fii ci Sénégal ak ci yeneen gox ci Afrique wane nañi du ñàkk liggéey kese moo tax nit ñi tukki mais dafa fekk ca la ñuy liggéey mënuñu cee gis seen bopp gis nañu tamit ñu bëri ñoo xamante ni ñi ngi tukki ndaxte xat-xat yi ab na ci seen dëkk yi waaye ñi ngi xool tamit nii li waral nit ñu di tukki mooy gisuñu seen bopp ci li ñuy yëngatu ndax boo xoolee li ñuy wax ni changement climatique bi dafa am impact bu rëy ci mbirum tukki bi ba mu dem ci mbirum napp gi tey jii boo xoolee euh, napp gi coono bi ñu àndal tax na xale yu bëri teg lépp daal di dem te nag li ko gën a mettil moo di mbirum Covid bi mbas mii ñu weesu gis nañ ni mu taxee ñu bëri ñàkk seen liggéey ci hôtel yi ñàkk seen liggéey ci taax yi ba li ñu am rek comme réponse mooy daal di tukki moo tax tey jii bëgguñu woon def waxtaan bi entre universitaire kese bëgguñu woon wax def waxtaan bi entre acteurs de la société civile dañ cee boole ak ministère de affaires étrangères et des Sénégalais extérieurs boole ci amit euh, ministère de l' intérieur mais boole ci ñaari fan yi weesu. ñi nga xamante ni sax ay artistes lañ di yëngatu boo xoolee def nañ ci benn exposition boo xamante ni danoo dem laaj ca Ndar ay xale yu nekk ci benn lycée ñu def ay dessin yuy wane li waral nit ñi di tukki te dessin yooyu wane nañi li tax nit ñi di tukki du ñàkkum liggéey kese te yaakaar nañ ni boo bëggee faj mbir il faut nga xam ni lan moo waral métit bi moo tax tey jii ñu tënk loolu boole ci émigré yi. waaw wàllu boobu nekk lu bees parce que boo xoolee euh, mbas mi bi mu ñëwee gis nañ ci Paris ay émigré sénégalais yoo xamante ni dañ ñoom ñoo njëkk a ñaw ay masque di ko maye. gis nañ tamit boo demee ay sans papier ca Barcelone ñoom ñoo njëkk a ñaw ay blouse di ko yóbbul ci hôpitaux yi boo demee ba Italie mu di ay Bassano Grappa gis nañ fa aussi ay sénégalais yoo xamante nii amuñu sax doole comme ni ñu ko xalaatee waaye dañ doon def ci ay carton ay lekk yoo xam ne ñoo ko toggal seen bopp di ko yóbbul nit ñi nga xamante ni ay màggat lañ loolu wane na ni danoo war a dépasser idée boo xam ne dafa war a jóge ci kaw ñëw ci suuf danoo nekk ci jamono boo xamante ni waxtaan dafa war a teew te waxtaan bu sell la war a doon waxtaan boo xamante ni ñun ñëpp ñoom ñoo bokk fi ñu dëkk fi ñu dëkk xat na xataay boo xamante ni lu sëqatloo nit ti sooli bi boo gisee tey jii Sénégal fësal euh, dooleem pour mën a yóbbu ay nit ca Turquie pour jàppale leen dafa fekk ni ñun ak Turquie li ñu boole dafa bëri te buñ ko tënkee ci mbirum migration bu leen fàttali ni Turquie jigéen ñi ñoo fa njëkk a dem ci migration loolu day waral ni aussi. migration warul nekk rek loo xam ne dañ ko war a wax ak discours góor ñi kese moo tax réunion tey bi nekk réunion boo xamante ni dañuy déconstruire déconstruire nag moom mooy dañuy daal di rocceeku ci waxtaan bu bëri bu fës bi ñuy wax ci biirum tukki bëgg koo fësal rek ci mbirum góor mais xool aussi jigéen ñi wàll biñ ci am mais tamit xool migration place bi nga xamante ni tout tànk yi ñu ngi ci bu leen fàtte nii fan yi ñu weesu rek affaire duuru bi amoon euh, mbuur wane na ni migration tey ji ñëpp la soxal waxtaan bi warul nekk rek euh, ci pays yi nekk ci suuf mu di waa Afrique pour euh, bénéficier ko ak euh, réew yi nekk ci nord mais ñun ñëpp nekk nañ ci àdduna boo xam ne xat-xataay bi nekk na ba ñu war a mën a jàppalante te Covid bi war nañu lu am fii mën na am fële tamit.